ñu commencé ko ak l'observateur euh, l'observateur euh, dellu si ci euh, conseil des ministres décentralisé bi nga xam ne ña ngi koy amal fële ca Tamba mu tuddee ko le beau maquillage Euh, maquillage nag euh, soo ko déggee rek euh, maanaam day am lu mu làq mu nëbb ci suuf santé éducation tourisme artisanat emploi les 248 milliards de francs CFA d'investissement face à la déception des acteurs dégg ngeen ci tamit débrief bu Abdoul mbay nekkoon fi ancien premier ministre ba léegi ci quotidien l'observateur entretien bu ñu amal ak Moustapha Dian Euh, interview euh, clash avec le facilitateur de l'audience entre le président et les rappeurs gis ngeen yenn ci rappeurs yi dañ leen recevoir oon euh, fële ca Palais Berki démb euh, mu andi euh, coow lu rëy ginnaaw raay la mésaventure de deux ressortissants ressortissantes maliennes séquestrées puis violentées durant toute une nuit loolu fële ca ginnaaw raay la xewe confidence de pêcheurs folle histoire en haute mer un monstre avec un corps de bébé, des bras, une poitrine velue et de gros pieds nous réclamait du lait euh, yi daal muy yenn ci histoire yu doy waar yoo xam ne nit ñi euh, napp ci géej gi euh, guddi ña nga koy jànkonteel kon loolu yëpp ngeen mën koo liir ci xët bu njëkk bu l'observateur ñu dem ci record record yéeni bu tàggat yaram bu ko Futurs Médias def ci xëtam bu njëkk ñaari euh, gaynde yi nga xam ne ñoo nekk ca Chelsea Edouard Mendy ak Kalidou Koulibaly Mendy et Koulibaly pour euh, un nouveau départ xam ngeen ni rek seen début de saison euh, fële ca Chelsea na mu demee woon du noonu ñuy yaakaar ni rek ginnaaw coupe du monde bi dinañu wane waat beneen xar kanam. Euh, Mendy retrouvé waat place titulaire am de même que Kalidou Koulibaly ci axe défense bi ñoom nag su 17h30 jotee la ñuy dajeel ak Bournemouth ba léegi euh, ci euh, xët bu njëkk bu record Aliou Cissé conduira l'équipe à la CAN 2024 le maître Augustin Senghor moom moo wax lu ni mel. Euh, ba léegi tamit euh, ci wàllu football maître Augustin Senghor ak fédération sénégalaise bu football na def toxu jógee euh, Ouest Foire dem fële ca Liberté 6 extension ñëw tamit ci Ligue 1 dixième journée statu quo ci bopp classement bi Guédiawaye football club wéy di ko jiite Casa Sport topp ci dañuy dem ci météo express ak Oumy Samb